asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu leen ziar tey nag fi ngeen fi fi ngeen gis ma taxaw buntu moo ne sama ginnaaw kon am na fu mu war a dugg su ma fi duggee nag li ma leen bëgg woon wala ki ma leen bëgg woon yaakaar naa ne ma ni wax làmb ci réew mi te waxee su ko kon yàgg maar nag topp ñu dugg si biir ma ubbi bunt bi dugg rek nuyoo xam naa ne moom ki ma leen bëggee woon su ma leen ko wanee faw ngeen xam ne làmb maa lay ziar. nangeen ngeen doon ziar Babacar. ci si jàmm. moom kenn mënut a wax làmb te doo ko. waaw dëgg la moom. yàgg nga jàmm maa ngi lay fi ma doon seet yegg si naat. Ah, fii mooy Bantamba TV. Bantamba TV. te ku ne Bantamba TV ne Bécaye Mbaye. waaw ah, loolu dëgg la. mu mel ni yàgg bi ñu dugg seen nag defe naa ki ñu fekk mu toog mooy borom Bantamba TV ndax li tax mooy sénégalais yi bu ñu découvrir Bantamba grâce à Père Bekaay Mbaye Père maa ngi lay nuyu di la ziar di la remercier ci dalal bi ñu dalal fi nga xam ne tam mooy mooy sa kër di Bantamba TV. Babacar maa ngi am mbégte dalal la ndax euh, yokku nga te ku yokkul yaa wàññi te am na loo def bi nga ñëwee léegi léegi boo dee xool site yi gañe nañu télé yi daanaka boo dee xool émission télévision yi fi gars yi seetaan mu jeex bareetul surtout site yi am nañ ci solo. ndegem it ay yàqkat lan bu leen ci yàlla xiiree mais au moins am na lu baax lu nuy def loo xamante ni am na njariñ moo tax boo fi ñëwee daf may dafay doon mbégte ci man fii nag waaw fii mooy Bantamba TV fii la ñuy liggéeyee li nu bëgg a jox réew mi danoo nekk nag di liggéey nànk-nànk waaw di liggéey xam nga bëggunu ci boole daal coow pour la le moment danoo bëgg liggéey balaa ngaa wane sa bopp daal defal lu tax nit ñi mën a wax waaye xëy rek ratatatatata doyunu te defoo dara doyunu mais on est en train de nànk-nànk comme ni coon waxee raam daam <laughs> kon da ngeen a bëgg a raam ba daan macha allah am na solo yàlla na yàlla def loolu yaa ngi ne siti sax dañuy def lu baax mais des fois ñu yàq mais xam naa loolu ku ñun ñëpp a ko bokk wax na xam naa lu ñuy séddoo la mais balaa may sori ci loolu dama naan la lan mooy bantamba. non bantamba toogaayu penc la. guy gi rek toog ci suufu guy gi di waxtaan di waxtaan ak cosaan di waxtaan ak jàmm ndaxte jàmm moo yor am réew bu jàpp jàmm amul lu baax du am jàmm moo jiitu moo jiital lépp hmm? kon ci jàmm jooju ñuy toogee ci pénc mi di waxtaane jàmm réew mi jàmm jooju nag la ñu bëgg a wone àdduna bépp gis ko moo tax muy sous l'arbre à palabres rek fa la mag ñi daan toog te nu waree waxtaane xarafal xale yi bu nu a waxtaanee siit bu nu war waree waxtaanee ngomaar ah maanaam lépp lu nu mën a war war a waxtaanee ci jubóole nit jàppalante ci wàllu diine lu nu mën a def ci penc mi la nuy toog wax ko penc moomu nag guy googu fa nekk ci suuf guy googu ñu doon waxtaane loolu mooy bantam bantamba jàmm jooju te surtout ñun suñu devis ñëpp xam nañ ko jàmm fu nu toll moom la ñuy ñaan pour le Sénégal mu ngi koy ñaanal ki jiitee réew mi di ko ñaanal ñi mu jiite gouvernement beeg askan wi. ndaxte Sénégal da di un boo xamante ni bu amul jàmm du mën a dem te ñu ko mooñ ñëpp ci jàmm lañ ko mooñ kon nanu góorlu xam sunu bopp te bu ñu xoolee li fi woon démb ak li tey jii dinañ xam ne jàmm mooy tax réew mi dem waaw te yar gone yi wan leen yoon yoon wu jub mooy tax bu ëllëgee ñu mën a yor réew mi loolu daal la ñuy sàkku sunu borom. te sénégalais yi bu ñu la gisee wala bu ñu la découvrir rawatina ñu mel ni Babacar ak ñeneen ak ñeneen. làmb bokk na ci li tax ñu xam la ca wal fajri ba mi nga ñëwee 2STV nag maanaam fa nga mën naa ne relevé défi bi fa nga wane sa bopp ba Sénégal yépp nag xam kan mooy Bécaye mbay mais xam tamit làmb lan la mën a indi ak communicateur u làmb par rapport ak ñi fi nekkoon ndax daan nañ dégg ndem si yàlla El Hadj Tafa Ndiaye ñoom suñu maam Mansour Mbaye yàlla na fi yàgg téwér ak yeneen reporter mais yow bi nga ñëwee dafa am beneen facette boo indi Père bi nga indi ci làmb gën a jege waa lu làmb gën a jox ñëpp kàddu ñu gën a mën a exprimer mu gën a wax loolu lan moo la animé ba nga def loolu. li ma animé mooy Sénégal danoo am seen yëf mu seen culture di leenu moom ma gis ni yeneen réew yi ku ci nekk am nga boo moom te yaa ngi koy doxal ku ci nekk rek ba ngay doxal gis nga ni sa réew la boxe bi boo demee États-Unis na mu fa mel boo demee Japon gis nga seen bëre boobu. ñu nin leen respecté ci moo boobu ñu dañ leen a respecté li nga leen di gis noonu ñu ay buur nu foofu ñu nekk boo demee feneen ak feneen boo demee Brésil football lañ xam ah boo demee feneen ak Amérique gis nga nin mel ci basket ah ñun nag ñu doon ñoo xamante ni africain lañu te lii sunu maam yee ko fi defoon ba ko fi eh, ma ne ñun nit comme que mi ngi def nañ ci ànd et mu am ay star yoo xamante ni fii ci biir réew mi danoo wane seen bopp ay mbër ay champion man ne mais lii lépp man dinaa ko génne il faut ñu def loo xam ne day tax ñëpp ñëw yàlla woo yàlla yàlla jàpp ci askan wi adhéré Sénégalais yi ak kenn mënu leen a fay danoo baax adhéré xam mën ngay def dara sax ñu ne bëggunu mais loolu danoo adhéré ñoom ñëpp adhéré ci làmb bi way làmb bi Bantamba nangam nangam ba tax na mujj gi reporter bu jóg ni gaa yi nekkoon ci meeting yi gaa yi mm-hmm. nekkoon ci simb yi gaa nekkoon ci ngénte yi showbiz baak ñëpp daw ñëw dugg ci làmb ji boo am na fi fecckat yi clip yu bari ci la lañ siiwee ba pare doo ko dem ñu bari ay comédien ci la ñu feeñ man damay toog ci télé bi di gis ay artistes yoo xam damay jékki-jékki ba xool ma ne mais kii Bantamba la jaar mm-hmm. mu bari ci ñoo xam ni ay artistes ñi comédien ñii lu leneen mais ci émission bi la ñu jaar ba wane seen bopp am na ñoo xam ci lañ jaar ba am leen am tukki am na ñoo xam ci la ñu tukkee waaw loolu loolu loolu barkeb yàlla la yàlla moo mel noonu yàlla nag da lay jiital après da ngay yaakaar ne yow la fekk na du yow de déedéet déedéet ka mu doon newu fii wala bu fi nee du feeñ <laughs> xam nga nga am déet na ku mu doon mais du du yow mm-hmm. waaw mais yàlla ci yow la koy jaarale mm-hmm. parce que olof ne lu yëngul la ko yëngaloo ko ëpp doole. foofu xajul sax ci moom. waaw lu yëngu rek la ko yëngal ko ëpp doole loolu yëngu nag moo yëngal lépp ba tax làmb na après làmb dem nag xale yi nag mu fekk mu tombeek benn génération ñu mu doon seen chance mu mujjee ñëw mm-hmm. waaye ñoom la doonoon seen chance Balla Gaye Balla Diouf Modou Lo Eumeu Sène mm-hmm. ah, Issa Pouye Tapha boo yooyu affaire bi doon seen affaire ñu moom ko nag mu tombeek ñoom ñu tombeek man benn mbag mbangum mbër mu mag xool na ma ba si yàgg man eh, mbay mbay waroon nga fee ne bin fi bin di ñëwee ma ne ko déedéet bu ma fi nekkoon du baax <laughs> bii la wax mu ne ay waay lii buñ ko fekkoon danoo teel a juddu lii leen waroon a fekkee. parce que mbër yooyu nga fi lim yëpp bëri nañu buñ ko dee lim duñ fi jógee danga leen a feeñal maanaam danga nga wane ci lu bare ci ñoom seen facetu bëre ni ñu war a doon ak ki ñu war a mel mu mel ni koo ci tuddul sax jamono boobu du am lu ko neex wala boo reporté wul combat. waaw ah, daan la yuuxuma. waaw yuuxuma waaye <laughs> ah yuuxuma du man du <laughs> affaire bi mbir la daal mooy la yëngu rek la ko yëngal ko ëpp doole comme comprendre nga waaw moo xam lu feeñ la moo xam lu nëbbu la comprendre nga loolu la affaire bi demoon boo yooyu tam ñu boo rek nag am jom am fulla xam ne i lii occasion la gis nga nit buñ la ubbilee ab bunt nga xool ci bunt ba njariñ na ca dugal te boo duggee njariñ loola bu ko caaxaane bu ko fooye jël ko Youssou Ndour bi mu ñëwee ñu ubbi mbalax mu feeñ te mu doon xale bu ndaw mag ñi koy ubbi mu ne xaaral fii laay jaar lan moom moy sauvé li li yàqal nii laay moytu mu moytu ko jàll dem yoonam noonu rek la xale yee tamit am jom bàcc seeraas matul mbër matul mbër bàcc seeraas fit fit ak jom dong ko ci dugal dem ba am ci tur ah, ñu ci bari ci ñoom ah Balla Gaye xam ne moom deret ji la yore mm-hmm. mu tudd bu ci mm-hmm. Modou Lo bi muy feeñ xale la ah, lu ndaw mais jom maa ngi fàttaliku Modou Lo moomu Assane Assane Diouf moo Xaadim Diallo Pulaagu boobu defe naa kera yaa ko reporté Assane Diouf ci laa ko reporté ah neneen laa ko doon tudde sax moorloo xaw ma laa ko daan tudde yenn saa yi miinu ma woon tur bi <laughs> mais ma ne ko ndeysaan xale bee ko xarañ ñoom ñu jël xarañ nga bind ah, dem def ko seen seen slogan <laughs> ah, mais loolu la yàlla la. Lac de bi noonu la dan ma koo indil. Lac de Guiers 2 Lac dan ma ko indil Lac de Guiers 1 ak mama ak ko indil ni mu jàmbaar la mën a bëri na xale bi jàpp ci mu toog ni père jàpp ci ma jàpp ci moom it mu wane jom am fu la dem yoonam mm-hmm. ah ni si des noonu Gris Bordeaux daawul signé contrat te waxul ak man an di waxtaan ak man Eumeu seen nii la même chose noonu la mel day waxtaan ak man xale yi ñoom ñëpp nag ñoom ñëpp. mais comme que Modou Lo moo ci doon xale buy doog a feeñ ma koy tudd ñu ne Modou Lo la Modou Lo la Modou Lo Modou Lo waaw loolu itam daan nga ko dégg Modou Lo la faral bien sûr la budul benn duñu ba léegi bàyyeegun ma damay waaw damay romb nit ci bopp koñ bi sax mu ne mais grand ana Modou Lo <laughs> mu ne quoi ah, mi ngi fii booy jàpp sa njàmbur daa doo ko ni xaw ma Modou Lo di wala gisuma Modou Lo tax ñu lay jiiñ ne Modou Lo nga faral waaw parce que Modou Lo moo maaseek loolu moo maaseek euh, Balla Gaye a ngi fi ki ah Modou Lo ah Modou Balla Gaye ni nii ah, yooyu yëpp ah yooyu xam nga yooyu mooy tax ñu ne Modou loo nga faral et puis ni koy tuddee waaw uh-huh. ah, mais contre ma ko de hmm. ah déedéet lu ma koy dox di contre Modou Lo yàlla na ko yàlla xaaj booy man du ma contre mbër man mbër dama bëgg nga réussir uh-huh. man dama bëgg mbër yi di am lu baax pour comme ça booy loolooy tax ñun suñu liggéey am njëriñ moo tax bu ma ci gisee si ñoom ko yàq hmm. dama naan kii ngaaka la xamul ci lu mu ne xamul lu xew am na ci ñoo xam ne xam na ne duñ mbër mm-hmm. dugg nañ ci am ci occasion dem tukki duñu mbër duñu mbër waaye am nañ ci bunt mm-hmm. luñ ci amit lii la mm-hmm. buñ ko buñ ko toroxal ndax gis naa ci mbër moo xam ne léegi français la nekk ci armée française ñu koy wax ma njaay rakku sentel waaw Baye Mandiaye waaw noonu la waaw ci lamb ci lamb ji la jaar dem seen yoon Abdou Aziz Ndiaye sama jarbaat daf mu daan wax daf dañuy waxtaan bërgi mu ne mën di jaay nit ki li ko may alal bu mu ko baax lépp fu muy investir na ca dugal loola mu doon xale la waaye wax bi mu ma wax wax bu am maanaa ngi noonu mu ne mën di jaay man lu ma investir ci njaay laa koy dugal ndaxte man ci njaay laa judd ci laa judd moom laa xam du ma dugg ci beneen métier mu ma sonal mu ne mën di jaay yow télévision nga xam ak média dugal ci loola nga <laughs> moo la ci a génne c'est ça dans la vie ñu nekk ci làmb tam làmb di leen amal njariñ bu nu yàq làmb je profite de l'occasion gis xale yi toj chaise yi ñooñu bokkunu ci ñooñu ñooy ñiy yàq dafa am ci réew mi ñoo xamante ni yàlla da leen a teg nattu yàq donc nattu la xam nga ni stade bu nu defar def ci ay milliards mu doon sunu njariñ barki démb bi ko 2STV filmé ñëpp gis stade bi yànj bi mu yànj ñu dem toj chaise yi di buddi di sànni ñooñu bokkunu ci bokkunu ci làmb nan leen génne nan leen di génne nag mooy kuy ànd ak koy yàq ñu génne la làmb ji mbër ma ñu suspendre bu yeboo nga xiif bu yeboo nga bañ a xiif l'essentiel yaa ànd ak ko bon ñu boole la ak moom suspendre waa lijjanti say affaire waa loolu loolu loolu loolu la xale yooyu leen def ñaaw na ah, xam nga ni ñuy yàqal nit et puis nan pour euh, fans club yi tamit dam je profite de l'occasion encore xale yi ànd ak Ama Balde ak Modou Lo buñ leen yàqal seen liggéey mm. ci seen gagne-pain la bu nu bu ñuy dem signature mm. Ama mm. bul àndatee kenn ci ngay fayeeku de mooy defar kër ga de Modou bu dul loolu nag làmb doo étage ñooñu di ànd ak yéen di leen xatal ci ay signature contrat woo leen bën ñëw ngeen leen copain bii bokkatu ci lii liggéey la Youssou Ndour du ànd ak ñoo xamante dañuy dem ci soirée ba di ko toj. Wally Seck du ànd ak ñoo xam ne bu ñu demee soirée ba xeex faak ña ñeneen ña. déedéet kool koy def rek bëggoo ki nga àndal. ah déedéet bu dee yow mbër mi nag yaa ko créé bu dee Modou Lo moo ko créé wala Ama Balde moo ko créé mi ngi yàq fi mi ngi mi ngi mi ngi scié bant bi mu toog toog ci garab nag di ko gor da daanu yàgg garab ga te bu gaanoo nga gaañu te bu combat bi bu dul xaalis bu dul làmb Ama Baldé du am 100 francs Modou Lo du am 100 francs Luc Nicolas mi koy tëgg daa am dugal ko ci làmb mu am euh, Gaston Mbengue may tëgg yàlla da kaa wërsëgal leneen lu mu jël dugal ci biir làmb bokkunoog mbër mbër bu sans bëri doo am dara moo tax bu ma gisee koy yàq làmb moo xam mbër nga moo xam supporter nga dama naan yow bokkoo ci kii ñiy bëree tamit bañ a bëree ku mel ni ama euh, Eumeu Sène ak euh, Lac de Guiers numéro 2 yàq làmb maag laag dañuy yàq la. yàq làmb lu ñu def yow it père. 40 minutes songoo woo te lu bëri lan wax du yàq. Ah, ñoom ñaar déggoo liñ wax. lu ñu wax. dégg naa un mu ne moom xawma ku ko gis kera xam ne kiiw lagit ne na moom daa damoon xaw ma affaire yooyu. <laughs> waaw ñu bañ a ñëw <laughs> yomb na lag boo dammee lag bu dammee mu toog këram mu faju bu wéree mu ñëw bari Eumeu seen kenn xamee ko loolu Eumeu Sène combat am yëpp eh, eh, kii la nu mu tudd si. ah saf-sap xanaa combat bi mu daan sax Gris doo gis nga li ko ci dal da koo dóor ba muy bëgg a mu daan am ndam ah am way waaw loolu lan xam ñun loolu lan xam ci ñoom mais bu ama ñëwee taxaw ni da koy yeeru parce que moom moo bëgg victoire na ñëw ah loolu du yoon hmm. Lac de Guiers mënut a fexe ba daan ak sama benn loxo laay bëree indi kayit ah ni koy docteur bi moo ko ko bind loolu mooy avouer que ni moom ñëwul woon ci làmb ji pour daan ñoom ñaar ñëpp kenn ñëwul ci làmb ci pour daan kon ñoom ñaar ñoo yàq làmb ji. ëmb mais bien sûr et puis ëmb euh, nag daa bay ree làkk ndaxte ñëpp da kaa bay rek ndax ñëpp a ngi si làkk bàyyi ëmb. yow làkk daa deful dara wala. làkk man lakk làkk tànn na de. ah, ah làkk dóorul ndege mit ba léewtoo na fu léewtoo bu kenn mosut a gis ci àddina waaw moom sax au moins song na sax dóor na. Lac de Eumeu Sène da doon défendre rek bañ a ñàkk Lac de nag noonu mu bëree mënut a daan ma hmm. loolu ah mais bien sûr xam nga ni mënu ko cee daan waaye mënu ko cee daan boo bëggee daan da ngay mat ku matul doo daan waaw. ku matul doo daan. loolu am na léegi damay ñëw ak yow ci foo xam ne fa laay tëje ak yow parce que mooy euh, parce que dinaa waxaat ak yow ci leneen sax mais mooy fi nga yore muy kër gi muy Bantamba defe naa ne regretté nga ay ay journaliste gis naa fi koo xam ne sama jigéen la <laughs> sama des fois ñu jàppante mais sa mais borom baax la muy Ndeye Kumba Fall maanaam macha allah ñu gis tamit lii bi ni mu mel loolu ci côté investissement Père Bécaye xanaa war na coûter lu cher ak salaire yeeg yooyu. ah mais boo àndee ku lay taxaw parce que El Hadj Ndiaye laa àndal ah El Hadj Ndiaye télé bi Bantamba TV man ak El Hadj la. kon coproduction la. waaw danoo associé am ay kayit yu légal créer suñu télévision man je suis le chef El Hadj Ndiaye du recruter du wax programme du indi nit ku ñuy jël yoonam nekku ci. man maa gérer loolu sama investissement bopp la comprendre nga moom it am na lu mu indi ma am lu mu indi ñu booloo mooy doole ñu boole suñuy doole jël ay xale ay xale rek a liggéey nag ca bureau baag ñëpp mag ñi fi nekk daal ca kaw la nu ne di di jàppale di coacher ñoom dañuy coacher mais ñi nga xam ne ñooy liggéey muy technicien yi muy animateur muy reporter journaliste ku fi ne. monteur technicien yeeg ñëpp ku fi nekk daal xale nga ay xale yu ndaw fi nekk eh danañuy tàllal loxo nag Sénégal danoo bëgg liggéey rek amuñu doole nag doole ji bareegul comprendre am na rek luñ fi def mais liñ fi def du xaaju li war a nekk ci télévision li war a nekk ci télévision c'est énorme mais yàlla mi ngi nuy suturaal ñu ngi ciy liggéey ki nga wax léegi ndey kumba mi ngi fii liggéey Taïr gis naa ko mu def fi ay émission yu am solo am na ci yoo xam ne jotagul sax jàll loolu tam ci liggéey am na ñeneen ñu fi nekk ñoo xam ne itam ñoom ñu ngi fi dina li ñu gën a fi ñu gën a taxaw daal mi ngi ci bokk culture sport en société dinañu politique bien sûr mais daal bëgg di def nànk daal di def nànk di def nànk ba gënoo profité parce que da ngay gis télévision bi te xëy rek jiw après bés mu ne pip <laughs> loolu la ñuy bañ waaw yuréet këng daal wóorul. këng wóorul moo tax ñu bëgg def nànk waaw voilà moo tax ñu bëgg def nànk di liggéey noo kenn dara nag. télé yëpp nag ñoom ñëpp suñuy ku ma ci war a mën a dem liggéey ak yow. damay liggéey ak yow. Hmm. waaw non du 2STV rek de bu ma gisee beneen télé boo xam ne am nga programme boo xam ne ñii li mën nañ koo seq mën ak yow hmm. ah non dañ ciy liggéey parce que télévision bi dafa indépendante par rapport ak 2STV a ah non bokku nu nag mais nag am ñoo bokk groupe. ñoo bokk groupe mais lu mu bëgg liggéey ah déjà l'œil du tigre léegi mu commencé bu soobee yàlla dañ ko naroon a commencé mais koor gi ñëw na mais dañ koy bàyyi ba koor gi jeex bu koor gi jeexee na ñu reprendre l'œil du tigre avec Bécaye Moustapha Gueye Mbaye Fall. di fan ci 2S. fii ci Bantamba TV waa bu boobaa l'œil du tigre dina daw Bantamba TV di daw 2S TV. incha allah mais léegi dafa am loo xam ne dama la kay laaj muy presse en ligne bi dafa mel daf ci am ñoo xam ne dañu am benn ñaxtu bu ñu ñaxtu wala ñu dégg benn kàddu boo xam ne bokk am na ci ñoo xam ne dañ jàpp ne est-ce que Père war na waxee ak ñii ñoom ci nii maanaam dañ ne maanaam ci li ma dégg Père Bécaye dafa jàpp ne presse ligne bi ñoom ñoo yàq làmb ji loolu say wax la wala. non am na lu mu yàq am na lu mu defar mooy li ma la wax léegi presse en ligne non man ma am presse en ligne. <laughs> presse en ligne ñoom donc moo mënu ko de nan bàyyi nag lu jóg ñu yaakaar ne ñoom ñoo ko moom waxuma ak ñoom man dama am presse en ligne comme ñoom ni noo amee presse en ligne mais am na presse en ligne yoo ne dana yàq yàq der lan fi nekk buñ duggee ci làmb doon wax léewtoo nanu doon wax song na ko doon wax daan nan ko doon wax ñaata lan fay xam nga lu ñuy wax Balla Gaye moo def nangam Modou Lo lii la def Ama Baldé ragal la bu Gris Bordeaux cuune la nang yooyu la na wax ni mooy yàq làmb te li ngay wax yëpp lu dëgg xam nga ni Ama ragalul xam nga ni Balla Gaye deful dara yooyu la nu wax Balla Gaye demoon na fële Modou Lo fee la nekkoon di wax waxin yoo xam wala def laa Gaston Mbengue saaga na Balla Gaye Balla Gaye <laughs> Gaston Mbengue nee na ëmb seen nangam ëmb seen non non non man loo ñooñu laa wax ni ñoo yàq ak ñi nga xamante ni ñi ngi nekk ci présent en ligne bi ay saaga la ñuy wane ay jigéen yu def taatu neen la ñuy wane ay góor ñu nan ma baal sax ci baat bi ma wax yu bon yi dong la ñooñu presse en ligne boobu laa wax baaxunu kooku moom ku ku ku d'accord baax na ku ci d'accordul baax na waaye presse en ligne bi nga xam ne day wax jàmm di wax développement Sénégal ah non man presse en ligne boobu kay damay ànd ak ñoom mais nag Sénégal moo mel noonu léegi Sénégal léegi dañuy bëgg kuy wax wax yu bon yaay ëpp buzz si télé bi sax ki gën a wax wax yu ñaaw moo ëpp buzz vulgaire ah ki gën a wane ay yëre yu bon waa boo demee soirée Pape Diouf seetoo fa dara lu dul rek ku sol lu lu gàtt nga wane ko xaar may ma jaaga mu ne yekk taan mosu fee jóg mm-hmm. xale yee yuuxootul <laughs> déggoo li ma wax boobu. dégg naa boobu wax. mu ne ah yekk taan mosu taan te ni complice nga. complice nga mu ne yekk taan mosu fee jóg xale yee yuuxootul loolu la yooyu yëpp dafay am bu jëkkoon daa amoon sutur mm-hmm. hmm? mais léegi sutur amatul si senegal dañuy saaga mag dañuy saaga sëriñ dañuy saaga kilifa. dañuy wax nit borom xam-xam day wax cuune weddi ko. waaw ñàkk teggin gi de moom moom fees na ak ak ak ñàkk yar gekk yooyu moom loolu moom kenn mënu koo weddi ci réew. borom xam-xam day dem ci téere jàng am xam-xamam ñëw wax ko Bécaye Mbaye xamul dara jàngut jàngaanut weddi ko. te sañ caa werante ba dugg boîte vocale. ba dugg boîte te xamul ci dara. senegal rek la loolu am ñu ne wax sa xalaat wax laaj askan wi loo xamante ni yow ñiy wax ñiy tontu ñëpp waxuñu seen xalaat dañuy parparloo Sénégal des fois dañuy jaawale analyse ak wax sa xalaat dañ koy jaawale. ñaar yooyu lu différence bi. ay ah, itam analyse dafay objectif wax sa xalaat nag sa bëgg-bëgg dong nga fa nekk di wax Sall warut a def lii Macky Sall nii ah, ah ni mu defee te ba c'est normal te ñii di politique te yow wax sa xalaat <laughs> wax sa xalaat mos man ci ñi jëkk def wax sa xalaat ci Sénégal laa bokk man man ah bien sûr. ci ñu ko ñun bi ñu njëkkee def wax sa xalaat président sax ak ki yoroon genre CNRA bi Kébé xaw ma danoo ñëw ne dañuy arrêté affaire bi waaw way maam lees jëngu ak si Lamine ni duñ arrêté dara <laughs> way parce que peuple bi commencé nag di am baat ah moo tax wal faj yi ñu jël slogan boobu la voix du peuple des sans voix waaw ci no wax sa xalaat boobu ci la jóge la jógee